asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal euh, di leen masawu ci coono yi coono yi nga xam ne Sénégal mi ngi jànkoonte ak moom ci fan yi ñu weesu waaye coono yoo xam ne dafa commencé woon depuis 2012 ba léegi ñu gis ci toogaay Macky Sall bopp Sénégal ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne nii Sénégal yi ñu ngi koy dund.

fan yi nga xam ne lépp luy rafetal démocratie lépp luy rafetal ab ànd ak déggoo ak dund gu baax gis nañ ne régime Macky Sall da ko tasare da ko salfaañe joxul benn gëdd ci Sénégal yi loolu nag mooy li nga xam ne ci wàllu démocratie moom lañ gis démocratie boo xam ne nii euh, dafa dox ba agsi fii ci Sénégal da ngay commencé ci maam ña ci liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko Sénégal euh, ba ci euh, ñi nga xam ne ñu mujj defendre nekk les Mohicans de notre démocratie ku mu ne ab Abdoulaye Wade ak ñaan ñi mën ñoom génération yooyu ci génération yi mën ne Ousmane Sonko ñu taxaw pour jubbanti Sénégal pour taxawal démocratie gis ne kon boobu léegi Macky Sall ak nguuram ñu ngi teg ay jéego yoo xam ne nii dafa jëm ci lépp lu salfaañi suñu démocratie lépp lu jaxase Sénégal lépp loo xam ne tamit day indi ay xuloo ak i gis nañ ne moom la Macky sal indi ci réew mi ñu xam ne kon man démocratie nekk na mbir moo xam ne mbiru respect la ay loi dañoo respecté loi yi dañu war a respecté tamit yelleef ak i doomu aadama yi waaye su fekkee ne nañu am ngóor goo xam ne nii dañ ko faloon ci wàll maanaam fa la ni gën a rafet Sénégal muy alternance bi amoon 2012 ñëpp amoon yaakaar ñu dem ba tey ji yaakaar yëpp a tas ndax ñim àndal moom Macky Sall seen yéene ak seen seen pas-pas mooy lépp lu gànkal man démocratie mooy jàpp ay opposants gis nañ ci ku mën a Karim Wade ku mën a Khalifa Sall tey jii tey mu jóg pour song le président Ousmane Sonko loolu nag la ñu wax ne du fi mën a am tey du fi mën a am ëllëg benn Sénégalais wutu mën a accepté que président Macky Sall mbir mi jëm ci Ousmane Sonko mbir mu jàll. kon ñi ngi woo képp ki Sénégalais képp koo xam ne démocrate Sénégalais yi man yite na la nga jot bokk ci xeex bi ñun fas nañ yéene bokk ci xeex bi ak ñu àndal du wax ne Macky sàll réew mi moomu ko da ko da ko daa fekk ñu tabax ko liggéey ko joxan ko ko. kon nag buy dem génn Sénégal dafa war a bàyyi réew mu am daal réew mu am jàmm moom lañu soxla te moom la ñuy ñaan. waaye nag kon moom dafa décidé eh, moom ak ñi mu àndal doxalin nu buur maanaam moom ak njabootam parce que moom nee na réew mi du fi jóge ndax 2024 lay préparé loolu la wax ne nag bépp Sénégal wax na ni démocrate nga wala jàmm maanaam maanaam moo la yitteel war ngaa taxaw ci wax Macky Sall na taxaw ci li nga xam ne mooy projet politique bi nga xam ne mooy di faagaagal ay opposants di bañ mukk dem élection manam and ko ak mbeur yo yoo ni dañ ko ma dajal loolu nak la wax ne dafa doy ñi kon kep kuy Sénégalais bis ñu ko tey ñu jëm suba Dakar ñu war dem fekk ci marché ba marché bi nga xam mom lañu wata suba ci Dakar ak fepp ci Sénégal ñu ngi ciy woo ñëpp ku mënta dem fa nga nek da nga def marché lu li Macky pur def te ñu liggéey pour pour pour résister parce que résister ak bagn la te bagn loolu lañ xamoon suñu mam ya loolu lañ xamoon suñu wajur loolu ñu xajum li ñu bax ñep loolu ñu xamante ne muy ak bañ ak notel té lañu gis tay mu ci Sénégal ak notel lañu gis ci Sénégal té loolu passé won nañ ko té loolu mënta am Sénégal duñ ko may Macky Sall duñ ko may kenen ku yalla bind kon li mu teg li mu teg Ousmane Sonko président Ousmane Sonko nako téggi nako téggi bu ko téggu wut réew mi dañ dal ci komam loolu moy wax ji té Sénégal yépp ñoo taxaw pour fépp pour wax né li na doy li na dak ñu leen di gërëm di leen sante di leen jox rendez-vous inshallah Dakar suba ci marché ak fépp foo na ni nii ku ku mënta dem nga taxaw naxaroo li Macky Sall def Sénégal ma ngi leen di sant yéen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah